ku rafetlu ay sorti wam la ku ñu rafetlu kàddoom la nit la koo xam ne euh, dal gi ci moom xam-xam gi ci moom ñu bëri ko ko ndawee di professeur Amsatou Sow Sidibé c'est un plaisir pour ñun di compter ci yow ci jour yi nga xam ne yu mel ni la jërëjëf professeur Mamadou Awa Ndiaye jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu waa 7FM yëpp ak képp ku nekk euh, di ñu seetaan mm-hmm. di nuyu Abdou euh, Aziz Abdou mm-hmm. tamit bàyyiwuñ ñu kenn. jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. yëf yi noo ko dundee mu doon lu metti lu lu doy waar. lu doy waar ak tiis. Mhm. moom lañuy yeewoo jaaxle ndax suñu réew mënuñu woon foog ni dina ñëw ba fii fi mu nekk dañu nërmeelu ndax euh, dara jarul lii. Mhm. waaw ñu saaga la jaru ko. ñu dóor la jaru ko mm-hmm. su fekkee ne benn ci yoon amul jaru ko mm-hmm. kon boog euh, damay màssaw bu baax suñu mën Maïmouna nduur Faye mm-hmm. di ko ñaanal yal na ko yàlla yëkkati ak jàmmat salaam jërëjëf te lii yàlla bu mu fi xewati yéen tamit ma leen di encourager ndax da ngeen nekk dans le milieu de la presse. Mhm. xam soloy informer population. droit la. Mhm. population dafa am droit ñu koy informer ñu koy wax lan moo xew ci ngeen nekk di ci bay waar. Mhm. alors naqar bi nag dafa gën a ti metti xam ngeen lu tax mois de mars nee nañu. weeru jigéen ñi la mhm. moment la boo xam dañuy taxaw daan ne situation jigéen fan la toll tey su fekkee ne dañuy yeewu premier mars mhm. liy am ñu jàpp jigéen jamate ko ay paaka mel na ku ko bëgg a rey mhm. dañuy jaaxle de dañu naan ñun suñu xeex ay ati ati at ku mel na man ak sama moroom ñu ràññale ci bu mais fan la toll. ñun est-ce que gagné nañu dara. daf ñuy décourager waaye du ñu décourager. ndax dañu war a di xeex xam nga àddina sax lool la xeex la tout le temps tout le temps pour yegg fa nga war a yegg. kon boog euh, ñaawlu nañ ko lool lool lool lool jërëjëf. lii ki ko def xamul ni suñu borom la tooñ xam nga lu tax. Mhm. affaire àq ak yelleefu doomu aadama la mbirum wérgu yaramu nit mhm. mbirum yaramu nit mbirum bakkanu nit lépp lu concerne nit suñu borom moo ko fi teg dafa indi nit tegaaleel ko loolu soo laalee yaramam tooñ nga yàlla mhm. soo faatee nit tooñ nga yàlla lépp loo def lu metti nit suñu borom nga ko def mhm.